ci euh, wàll wi. asalaamaaleykum wa rahmatullah balaa may joxe message bi rek bëggoon euh, nuyu imam ratib bu grande mosquée bu Dakar di nuyu tamit grand sëriñ bu Dakar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ay góor wala jigéen ñëw nañu jullisee fii ci grande mosquée. bu ma nuyoo imaam Grande Mosquée de Dakar rek mel na ni nuyu naa imaam yëpp ak fu ñu mën di nekk nuyu naa kilifa diine yëpp ak fu ñu mën di nekk mel na ni tamit bu ma nuyoo sénégalais ak sénégalaises yi fi ñëw julli si mel na ni nuyu naa sénégalais yëpp jóg tey dem julli ji ak fu ñu mën di jullee ci biir senegal ak ci biir àdduna bi di sant bu baax a baax a baax gannaaw bum ñu mayee ñu jóge ci xat-xatu élection yoo xam ne xëy na ñun ñëpp ci njëlbeen tiitoon nañu ci waaye ñu dugg ko ci weeru koor génn ko ci weeru koor tamit di ci sant yàlla bu baax ci ñum lu mayee ñun ñëpp senegal ndax Sénégal moo ko moom ndam li nga xamante ne doonte xëy na am na ñu amoon tiis ak njàqare yàlla may nañu ba ñu génn ci jàmm am élection boo xam ne àdduna yëpp jaaree na fa gën a naw senegal loolu nag lu ñu ko may mooy ñaan yi nga xamante ne nit ñu baax ñi fi jiitu ñu ngi ko fiy ñaan guddeeg bëccëg ñaan yi nga xamante ne ñi fi nekk tey di naafila di yokk seen ñaan rawatina ci weeru koor gi di zikri di jàng ay xasida walla ñuy wasifa wala ñuy dem ci jàngo yi wala ci yeneen anam di ñaanal réew mi di ñaanal waa réew mi ñu koy sante yàlla bu baax a baax a baax nag gannaaw bi xat-xat yooyu tombeek weer wi nga xamante ne weer la boo xamante ne yàlla def ci ful lépp loo xamante ne ñaan la te gaaw nangu ko lool di ñaanal ñi nga xamante ne nag ñooñu ñooñu ma tudd noonu muy kilifa diine yi kilifa aada yi muy sénégalais yeeg sénégalais yëpp ak fépp fuñ di nekk di ñaanal réew mi di jóg guddeeg bëccëg suba ngoon di ko def di leen sant ci ndax ñoom ñooy li téye réew mi ba nu ñuy jaaxle jaaxle jaaxle ñaan yooyu rek mooy li nga xamante ne moom la ñuy mën a expliquer luy tax Sénégal du tabbi ci waaye nag loolu nit ñu màgg ay nit ñu baax yàgg fee du ci leen fi mu xewal ci réew mi te ba fu ñu toll nii ñu nekk fi di ñaanal réew mi am nañ loo xamante ne moo ñu koy moo ci ñee bëggoon ko am amuñu ko bëggoon tamit balaa may jóge ci kilifa diine kilifa ak ñëpp ñu nga sant baare sant bu baax ndax su ma tuddee imam ratibu grande mosquée de Dakar mel na ne tudd naa imam ratibu ak jumaa yëpp ci biir Sénégal waaye dafa am loo xamante ne ndam la ci ñun que doomu Sénégal yi yàgg di jóge fii dem jongante ci tarig alxuraan indi ay raaya te loolu ñoom lañ koy sante quelque soit nag jafe-jafe yi nga xamante ne am bu ñu jàngale alxuraan di ko def ci ay nit di defar nit ñi waaye di def ci ñoom tamit xam-xam weeru koor nag da di weer goo xamante ne weerug cant la weerug jàppalante la weerug suturante la yàgg nañ ci jàppalante yàgg nañ ci suturalante te jàppalante googu la imaam doon wax sànq ci baam ne mooy li nga xamante ne moom la diine woote te xëy na sax moo tax diine bokk na li tax diine jóg ndax jàppalante boobu mooy tax ku am jafe-jafe doo ko yëgee ni noo ko war a yëgee ndax xam nga ne am na koo xamante ne mën nga weeru ci moom ba mu sedd ci wala mu oyof ci yow di ñaan di ñaanal Sénégal di ñaan sénégalais yi tamit ñu ñaanal Sénégal continuer di ñaanal Sénégal ndax fii lañu am amuñu feneen bu mettee fii la bu neexee fii la lu ñuy sàkk muy suñu njaboot fii lañ koy sàkki ni teg ko ci suñu war a jële tamit te waxuma président de la République day fiy dund yëpp dañoo war sénégalais yi ñi ñëw ëllëg ñu xam ne Sénégal gi génération ba génération ci def nga ci sa jàmm ko ci joxe loxo yi ci ci jàmm ñooñu continue tamit di jàmm di di di dox